li nga xamante ne euh, section recherche bu gendarmerie démantèle woon na ko ci atum 2019 te mu impliqué ki nga xamante ni moom mooy Bougazelli de toute façon dinañ ci ñëw suñu yeneen i jotaay ngir gën a lu jëm ci wàllum dossier bi donc Fatima loolu moo nekkoon RPG wu tey bi voilà c'était ça euh, gërëm mbokku téléspectateurs yi ci ni ñuy toppee ak teewlu j'espère que revue de presse judiciaire bi euh, jaar na yoon ñu leen di joxaat rendez-vous rek mardi prochain incha allah bu ko defee ñu ñëwaat ci yeneen exclusivité ak yeneen ci ay cas bu ko defee ñu andi ko fii yaatal ko jox leen euh, lépp loo xam ne moo ñeen information ci wàllum yoon. baa gars wax nañ la ci sa sañ bi. ah Pape Moussa lay xaar. ah Pape Moussa Pape Moussa looy xaar yow tamit ah kon baax na ayca Fatima ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la jox euh, dig daje ci beneen mardi yeneen i dossier judiciaire di masaw bu baax a baax Moussa Ouedraogo di ko ñaanal suñu borom teggil ko nattu bi di ko ñaanal tamit mbooleem détenu yu nekk Sénégal particulièrement jigéen ñi nga xamante ne caabi da leen féete ginnaaw moo xam maison d'arrêt pour femme wala bële ca nekk fële ca Rufisque ak quartier pour femme yi nekk ci euh, région yi su ko defee kon euh, suñu reportage d'entrée tey dañuy doxantu ba fële nga xam ne moom mooy maison d'arrêt pour femmes bu Liberté 6 muy kasob jigéen prison jigéen ñi nekk fële ci Liberté 6 dem xool suñu sœur suñu tante suñu yaay suñuy bàjjan suñu jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ci yenn anam lañ fay nekkee ak tamit séq ak waxtaan ki nga xamante ne moom mooy direction euh, directrice su prison boobule régie kon su élément bi baaxee rek ñu dem ñooy defar fii ay perruque tresse lépp lu jëm daal ci wàllum bopp pédicure manucure yëpp la ñuy defar fii lépp la ñuy def même traitement de cheveux lépp li am ci daal am na fii waaw dañuy am ay clientèle yu jóge ci ñëw fii di lettu waaw comme ku yàgg gérer salon rek boo yàggee gérer salon da ngay xam ni ngay accueillir nit ñi bu ñu ñëwee nga lett leen defar leen après mooy loolu daa nga wax leen prix yeeg yëpp fii dañuy defar céréale bi jus bi ak teinture lépp la ñuy def man cuub yi ak ñaw yi yëpp fii laa ko jàngee ak jus bi yëpp fii laa ko mënee mais léegi rek laa daan def si biti mais yeneen yëpp fii laa ko jàngee ak toog machine yëpp fii laa ko jàngee waaw am na fi dañuy ñaw yu rafet sax man ma xool am naa fi 5 ans. ah jàng naa fi lu bari sax loo xam ne xalaatuma woon sax ne dinaa ko mën un jour toog machine nii mooy loolu yëpp xalaatuma ko woon jus bi tamit mënuma ko woon noonu. cuub tamit noonu tamit ah macha allah mu nekkin moom rafet na moom. boo xoolee tenue bi da nga naan ñii dañoo lii wala lii mais ñëpp benn lañ dañuy kaf fooree ñooy lekkandoo ñooy defandoo lépp amuñu benn problème ñoo leen di létt seen bopp ñoo leen di defaral lépp presque. amuñu benn problème nekkin bi rafet na macha allah. waa xam nga boo xamul rek xamoo mais boo xasee ba ñëw fii ba gis rek yow da ngay xam ne fii daal jàmm rek moo fi am daal ñu ne gi benn lañ voilà dañuy kaf foore ñoo leen defal lépp presque ah bu ñu dimbale ñu rek. ñu ngi liggéey ñu ngi góorgóorlu nit nag day juum. mais bu juumee nga may ko chance am baal ko te ñu àtte jigéen ñi bari nañ fi torop sax voilà mandat dépôt yi métti na yàggaay bi tamit noonu ndax 2017 ba léegi maa ngi fi ñi nekk si biti daal ñoom bu ñu ragal fii dara nekku fi boo xoolee yéen ko gisal seen bopp comme salon yi nekk si biti rek benn la manqué wuñu dara suñu produit yaa ngi nii lépp lu am si biti rek ñu dañ koy def fii si salon bi dañuy pose ongle lépp la ñuy def. ci bésu tey bii. ñu nekk ci juróom-ñaar fukki détenu ak ñeent. Euh, fukk ak ñeent lañ ci àtte ba pare donc juróom benn fukk yëpp dañ toog di xaar ah nekkin bi moom comme ni ngeen ko gisee rek kër la donc comme kër moom famille lañ ko mën a jàppe te famille la aussi parce que sooy xool ñun li ñuy passé ak ñoom duñ ko passé ak suñu famille donc dañuy dund comme mag rakk nit ak tantam nit ak yaayam ambiance bi moom macha allah administration pénitentiaire dafa am ñaari mission benn mission bi mooy sécurité beneen bi mooy préparation à la réinsertion sociale dañuy waajal ñi nga xam ne ñoo nekk suñuy loxo de sorte que suñ génnee ëllëg dinañ am ci luñ jafandu maanaam dinañ fi jàngee loo xam ne suñ génnee dina leen mën a jëriñ nañ góor góorlu te nañ muñ parce que nattu la nattu nee nañ dañ ko tuddee nattu mais natt la yàlla dala koy teg pour xool sa ngëm-ngëm fu mu toll ci moom donc nañ muñ te xam ne day jeex c'est un passage de la vie donc yàlla moo ne woon dinañ fi jaar jaar nañ fi mais waxuñ ne dañ fiy des donc dañuy jaar dañuy génn moo tax nañ muñ te góorgóorlu parents yi aussi dama leen di ne nañ dalal seen xel problème bi ñu am nee nañ leen du problème mu nekkin mais problème mu lenteur de justice la donc ñoom képp ku ngeen ci waxal rek nee nañ leen suñ problème mooy dañoo bugg a ñibbi donc nekkin bi rafet na ñu ngi ci jàmm mais liberté dem ak dikk moo leen manqué te vraiment ñu ngi ñaan autorités yi aussi suñ ñu ci mënee dimbale ñi ci biti aussi ñu ngi leen di ñaax ñu moytu parce que comme niñ koy waxee li mën a dugal nit dafa yomb mun nga def dara xeeb ko fekk loolu ngay def mën na la indil leneen donc ñu moytu bu baax xool fu ñuy teg seen tànk